Mustafa mani wa yaasna ko joona way ngi rek ñi di saaj taalib te seeni baay sax ma ferul baasin ba yaasna su baaxul way na xudoo sunu ree di balam matu yaasin nga te bon nga lam te bon te bon bilaay nga lam te bon te kon la yab njaa ca fa yaasin ku ma soppal seex umme loxo ca kaw fa yaasin yaasin raw na jàpp ci waay yaasin ku ma soppal sëriñ seexu me waxoo ca kaw wax leen fa yaasin waa ku yaasin raw na jàpp ci waay yaasin seexu mi fàlliloo mi man sama géer ga may way du déglu ko wel ba xol ba tilim fa yaasin Mbàkke taw bi di taw ci barke Serigne Seex da lay taw waaye ngelaw li di naaw ci barke Seexu mee da lay naaw billaay loxo ca kaw faal bakaar ca suufa yaasin ku yaasin raw na jàpp ci waayu yaasin jaraw la ke jaraw la ke Seexu mee jaraw la ke ka ku la bañee dafay la ke yomal xiyaam na kuñ falake dala bañoon maam Bamba ci xarnu be jaaraw lakk kon jaaraw lakk ka dafay lakk yom waaw waaw ndeysaan dala bañoon ummi maam ci xarnu be billaay jaaraw lakk lakk bañee sëriñ Seex dafay lakk ndax yamal xiyaam na kuñ fa lakke dala bañoon maam Bamba ci xarna be kon jaaraw lakk kon dafay lakk ndeysaan waaw waaw waaw ana soppey baay mbeen meene ana soppey baay mbeen meene sëñ Fallu benn yoon Sëriñ lay ah, la lu muy rëy rëy ne ab dafa sori waaye ku jàkku si Fallu laaye la Yàlla faale

Don't let, let go. illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah jeyala la ilaha illallah wajal bi daari yakal madina barakatan wal kaafatan lii la Bamba ñaan wajalilaahi maskani tubaaban aw mislas mi xaabi jaay xay riman xabaar ñaan ge nangu na maskani Touba abad oh. mislas mi xaa bi jaay xayri man xabaat ñaan ngeen nangu na alxamdu may sant borom tey sant nabiyul karim tey sant ahmadul xadim di sant la faal ma raw ajib duwaa i rabbana may ñu ci barkeb seexana ahmad doonay rasuluna sakku mi deefi sëriñ saaliw ki daan di laabi sun borom yëkkati raay raaway borom gis naa ni yéen kii du morom ñu gëm ko ndax yàlla nu raw loxo ca kaw ñu màggal Serigne Saliou borom jamono borom Xaybara ay seexina yaa seexina ci seexina Serigne Saliou sunu ko nangoo mooy li gën si ñun bamba mooy li gën si ñun bamba ko moom réew mi bamba bamba ko moom mim réew bamba bamba mooy moom réew bamba ko bamba ko moom réew mi Bamba mooy ki ko moom taxaw ca kaw màggal Serigne Fallou Fallou feen mooy faj sama yaa Serigne Fallou alhamdulillah man jox na samay aajo Alaaji Fallou feen mooy faj samay aajo alhamdulillah man ku sopp Serigne Fallou loxo ca kaw nu màggal Sëriñ Fallu galas bàyyi benn mooy fadi sam man jox na samay aajo Seex Ummi Fallu feeñ mooy fadi samay aajo alhamdulillah ay man jox na la samay bay alaaji takko bay galas mu ndaw ku bëgg Sëriñ xawsu di alim danno xaadim rasul yaay faji suni aajo ku bëgg sëriñ fallu loxo ca kaw nu màggal sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu yaa fi mat qutbu man nga xawsu di alim donnu nga xaa xaadim rasuul yaay faji sunu aajo alhamdulillah man jox naa la samay bay alaaji sama waaji mooy faji samay aajo Sëriñ Fallu yaay abibul ilaahi yaa di xaritam yaay siraatul ilaahi yaay faji sunu aajo Serigne Fallou Serigne Fallou ku bëgg Serigne faj sama Serigne Fallou ma jekki ba ma may taxaw ma yeewu ba may nelaw may nelaw su ma may taawat mooy faj sama may nelaw ku bëgg ca kaw nu màggal Serigne Fallou mooy sama waaji mooy faj samay alaaji Fallou ma jekki ba nga may taxaw ma yeewu ba may nelaw su ma noppee ba may tawat muy faj samay aajo may faj sa may ku bëgg sëriñ Saaliw ma jekki ba ma may taxaw ma yeewu ba may nalaw ba may nalaw su ma noppee ba may tawat muy faj sa may bay sëriñ Basiiru moom sëriñ Fallilu bay Seex Murtada mooy faj sa may sëriñ Fallo yaay Abibul Ila di xaritam yaay siraatul ilaahi yaay faji suni aajo ku bëgg sëriñ si yëpp may na la bay galas mu ndaw maa may tawat muy faji sama alaaji fallo diggante weyet ak wetali ko ko jaxasoo jub digal te du të may faji sama laaji fallu diggante weet ak sëñ fallu doogu beero jaxaso ma ci tollu di door may faji samay aajo léegi anu soppay Seydina Muhammad waaye def leen nii waay ci Seydina Muhammad ma ne anu ñu bëgg yonent bi def leen nii ci Seydina Muhammad xayaarul alamin Muhammadul amin yoneen ñëw képp ku bëgg a dem siyaar gi Seydina Muhammad jugal taxaw ca ko màggal yonent bi naa ana soppe ya rasulallah Mamadu xayrul anbiya maa leen gënal yoneen ñëw na xayaaru alamin Mamadu lamin yoneen Amadu Abdullahi Amina mooy yaayame jar naa yëngo yoneen ñëw na alamin Mamadu lamin ana soppe ya rasulallah wayla leen ma yoon leen be jar na yëngu yoneen ñëw na yaaru alamin Mamadu yónneel be jar naa yëngoo yónneel ñëw na Mustafa jar naa yëngoo ana ñi bëgg yaa Rasulallah yéen laay wa yàlla yónneel be jar naa yëngoo yónneel ñëw na Lamir Mamadou Lamir Mamadou xore ba dara daan dàq naa leen sabaan jar na yëgoo yoneen ñëw na aramin Mamadu Lamin yoneen ñëw na lay lay la ay waay ma la woo jar na yëgoo yoneen ñëw na aramin Mamadu Lamin yoneen ñëw na sunu waaja amaganda